xam naa ne moom instant bi ñu maa xaar bëri na si sortie sortie bi kii def ex basi ex procureur Bassirou Gueye ndeysaan dama la déglu nga la ratatatatat la wax la jaxase la wax la jaxase mbir mi la jaxase affaire yi li nga wax yëpp ñette yi lam si jàng wala boog ñeente yi daxaa seetal sa boppa traité capitaine Touré de fou dugal Ndeye Khady Ndiaye dugal Ousmane Sonko si si biir wax nga ne yor ngeen cinq éléments wala six éléments yoo xam ne day dugal Ousmane Sonko moom ngeen jébbal si li ngeen wax moom ngeen jébbal procureur bi nga xamante ne wala boog juge bi cinq yooyu ne bëggoon na ma kaa xam ah lan moo tax si teew leen ga ba pare ngeen xam ne ne yéen ñaari mbir yi ngeen yor si dossier bi setal na Ousmane Sonko. te su fekkee mën na ko setal kon yeneen xalaat mën na ko dugal. <laughs> kon yéen si xalaat ngeen toll si xalaat ngeen toll kon.